alxames bi 8 euh, février xew-xew bu métti bu fi amoon boobaak léegi nag affaire yi di évoluer di évoluer ndax gaz bi nga xam ne moo fi explosé woon amoon jigéenu wérul boobu nga xam ne dafa jógee woon troisième dafa jógee woon étage tëb ba si suuf moom ak yaaye moo nekkoon si kër geek ak jarbaatam ak ay sëram ak frère gannaaw boobu nag bi mu amee ñu koy topp boobu ba léegi ndax xam ngeen ne xew-xew lépp loo xam ne indi na da koy topp waaye am yeneen yu bees yoo xamante ne moom moo am fii nga xamante ne mooy liberté si si ak extension euh, cité bi nga xamante ne fi la gaz bi explosé woon ndax ñu ngi forcé wu béykat ne mujj nañu am ay nit yu si ñàkk seen bakken ndax xam ngeen ne bi fi amee si saa si kenn ñàkku sa bakken waaye bés yi di dem ñuy dem bés yi di dem ñuy dem ba ki nga xamante ne mooy maire bi nga xam ne moo dëkkoon si kër gi muy maire Khady Sow mujj ñàkk bakkenam ak kooku nga xamante ne mooy sëtam boobu di El Bachir moom itam ki tamoon sept ans ñàkk bakkenam waaye ki nga xamante ne aussi moom mooy doomam jooj di Binta nga xam ne dafa nekkoon jigéenu wérul sept à huit mois moom itam nekkoon fii si kër gi te jóge woon troisième tëb si suuf moom itam mujj ñàkk bakkenam ak li mu àndaloon nekk nag lu métti loolu moo waral tax émission xew-xew tey ñëw leen ba tey suivi de ñu fas yéene dugg xuus xool gannaaw bi jëyee ji amee ba pare ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk si kër gi nan lañ ko dundee woon ak xew-xew boobu nan la demee euh, nag euh, juróom-ñetti fan juróom-ñeenti fan tegu si mu am yeneen yu si bees yu si nekk yow fekkee woon nga ko yëf yi keroog waaw affaire yi moom daanaka fekkee woon naa ko parce que man bu affaire bi di am ci wiir boobu nekku moon ci kër gi mais affaire bu muy am man nekku moon ci kër gi ñun dañoo xëy ay huit yooyu ay vers sept heures huit daal parce que xooluma woon heure heure boobu noonu dañoo jékki-jékki rek dégg gars yi yuuxu ñu ne am na fuy am na fuy lakk bâtiment bâtiment ka mu ngi lakk ñu rek ci lañ dawee ñëw man bu may yegg si fekk na kii mu ngi mu ngi waaj a tëb fekk na Binta moom mu ngi waaj a tëb léegi nag bu ma ñëwee ci laa tool ci laa si tombé grand ñenn ñenn nit ñu bëri ñu ne ko bul tëb bul tëb xaaral mu ngi yuuxu naan maa ngi lakk instant yi dimbali leen ma maa ngi lakk comprendre nga ci la jëkki-jëkki waaw boobu mu ngi si fenêtre bi ci la jëkki-jëkki rek mu tëb dal ci fiilu courant yi bu mu dalee ci fiilu courant yi wàccaat dalaat ci ligne yi après ci la eggee ci suuf bu mu yegg noonu tànk yaa ngi lakk tànk yi ñu ngi lakk boobu mu ngi téye talee nii tëddul saa dafa toog yenn maire yi ko nii ñu bëri bu mu tëbee dañoo daw sax ndax tiit affaire ci laa ñëw gis ko muy yuux naan sama doom bi sa maay dee sama biir baa ngi métti mu yuux naan sama biir baa ngi métti dimbali leen ma après ci laa ñàkk contrôle ma jóge fa boo fa jógee daw dem beneen côté bi ci ginnaaw benn oto fekk fa ndekete Basiru tamit wàccee nañ ko moom tamit mu ngi lakk xale bi mu ngi lakk mu ngi lakk bay yuuxu naan yuuxuwul sax moom da doon naan may leen man ndox ma naan loolu la doon may leen ma ndox ma naan mais instant boobu buñ ko may ndox fii wóorul affaire bi daal noonu la demee mu nekk lu metti sax lu metti lool ñoom ñëpp ñoom ñëpp kenn moo ci mucc mooy sunu mag bi muy Ablaye Sow moom moo ci mucc te moom tànk yi dañoo lakk ba ci kaw tànk yi dañoo lakk mu ngi nii ba léegi mu ngi hôpital moom tamit ba nii nii nii metti na trop dañuy jékki-jékki rek ñu woote ñu ne basiiru gaañu noo nit ñi di jooy loolu du yàggaat dara ñu woote waat ñu ne maire bi gaañu na nit ñi di jooyaat loolu tamit yàggaatul dara ñun woote tam naan kii ëmbam bi yàqu na méttit yooyu noonu yàggaatul mu nekk ci ëllëg si tamit ñi wooñu ñu fajar ñu nee ñu binda tam gaañu na metti na lool lool lool lool lool. lay waaw ñu leen di masaw di masaw maanaam Sénégal yëpp di masaw waa Barak di leen siggi leen di gaale ah di ko jàll ñi nga xam ne ñoo dëkkee Liberté 6 bi yëpp waaw tiis la métti na trop waaye ndogalu yàlla dañ koy nangu rek. suñu ay sœur lañu suñu ay frère ak suñu yaay yàlla natt daal il faut que rek mu amee nii mu demee nii waaye ñu koy jaar Sénégal yëpp di ko jaar waa Liberté en particulier waaw di leen masaw. yow noo ko dundee nan nga ko yëgee xew. waaw euh, presque fi mu amee ak sam pap fi mu dëkk benn la. kon fi mu fi ko nit xalaatee rek xalaatee naa ko fu ko weesu waaye li wax ji yëpp mooy ñuy ñaan yàlla rek euh, lu mel ni bañati am fii ndax tiis la boo xam ne ni nekk na lu méttee métti métti métti fu mu yem rek ñun fa la tàmbalee ndax nekk na suñu yaay suñu sista sama chéri la woon sax Binta waaw mu nekk loo xam ne lu yéeme bon ñuy ñaan yàlla xaral leen àjjana rek ñun métti na si trop euh, waaye may lancer message waa Barak nañu góor góor góorgóorlu Euh, gaz du lu ñu foowee euh, entreprise yi moom gaz yi tamit ñooñu ñu xam ne gaz kenn du ko foowee nit boo tollawul ci mën a defar gaz jaay ko amuloo pour di soleil gaz di ko jaayee askan loolu autorité laay lancé message ñu lu ci gaz yi ñuy bàyyi n'importe qui du soleil gaz di ko jaay askan bi explosion yi bëri na dee yi bëri na te loolu xoolal dafa war a arrêté ñun duñu ay bàyyi ma yu ñu war a utiliser nii ku bëgg a xaalis na nga ko liggéey fi nga ko mënee mais lii c'est des sacrifices yoo xam ne c'est inutile foofu laa yem jërëjëf. parce que amoon na lu mel ni amoon na derkle yaa ngi koy fàttali. ne mu ngi fu ne man ñooñu laay waxal borom gaz yi di jaay seen gaz yi tolluwoo ci defar gaz amoo capacité am nii assurance am bu ko defar di ko jaay mais ñi ko bàyyi ñi koy jaay ñooñooy ndey mbili suñu yaay yi di gaañu nii ak suñu doom yi du yoon gaz yi nañu arrêté di bàyyi n'importe qui di defar ay gaz di ko jaay point. vraiment xew-xew bu motti la xew-xew boo xamante ne vraiment xew-xew bu tiis la sax bu méttee méttee. nekkuma fi sax daa fekk ma dem Touba mais ñu ma ko waxee moom vraiment affaire bi métti na ma métti na ma lool bu fu métti yem boo ci laa jóge foofu ñëw bi ma ñëwee après gis affaire bi vraiment samay dëkkandoo lañu sama dëkkandoo yu baax yoo xamante ne yàgg nañ fi amuñu benn problème <coughs> yàlla dogal ñu ne ma maire bi ak ak setam donc ñoo ci laag ci laay lay préparé pour dem seeti leen hôpital ci diggante mi ñu ne ma ndeysaan gaañu nañu vraiment affaire bi métti ma lool lool lool lool. waaw ah. mel ni bi mooy ñaari jéyee boo xam ne gaz moo koy def parce que amoon na bu amoon derkle tam fukki bakken presque ñàkkoon ko fi bii nag presque yaay ak doom ak ku jigéen bu nekkoon jigéenu wérul ak euh, sëtam yëpp mhm. waaw foofu man même li may ñaax di ko ñaax sama waa di ko ñaax ñëpp mooy kenn suñu taalatee gaz buñ koy sori encore gaz encore àndul ak fourneau àndul ak loo xamante ne day indi ay falam wala yu mel noonu toujours gaz sooy togg de nekk toujours ci wetam suy peer ci suuf léeg-léeg parfois nga koy yërndu parfois nga koy nemmeeku métal gaz bàyyi ko foofu léeg doo ko seet ak bekk yu bon yi itam même bekk kenn du ko bekk boo xamante ni daal dafay xaw di peer wala leneen kooku moom waruloo naan da koy sooxaale toujours su sa bekk amee problème rek ne ko fa ñu nga dem jëndi bekk bu bees moo gën muy indi jëy boo xamante ne kenn du xam fan lay mujje quoi. mu nekk lu métti nag ndax maire bi wàcc ak njabootam dañoo dëkk plus de vingt ans. muy nit ku baax kenn xamu caaxaan daan doole rek moom njabootam ba tey jii ne illeer damm sa waar wax ndax daa fekk muy lakk beñe ñu démonté gaz bi moo indi jëye bi yëpp tey di leen ñaanal yàlla fa ñu jëm yàlla na leen gënal fa ñu jóge si barke yonent bi barke Serigne Touba Xaadim Rasul waaw gaz moom mu ngi def lu mu mën mu ngi lor njaboot yi waaw war nañoo mën a vigilant bu baax xool ni ñuy defee gaz yi di gën a sensibiliser nit yi ñu xam ne ñuy utiliser gaz ndax xam nga ne fourne ak gaz àndul munoo taal safara démonter bet loolu foo ko defee jëye am kon nit ñi war nañu di gën a yee nit yi ndax yow mën nga xam fekk sa moroom xamul waaw kon war nañoo génn yeete di ko gën si ñaax ñun soxna yi nga xam ne ñoo nekk si gaz yi ndax jëye bi bañ a amaat ndax lii métti na trop. ah métti na foo ko natt da ngay jaboot même boodul dul jaboot sax xam nga ne métti na. metti na torop ba ci kanamu yàlla waaye nag dañ koy diis yàlla te xam ne ndogal la rek bu jógee ko ci sunu borom yàlla bi nga xam ne nag moo ñu ko nattoo ñu delloowaat ko ko mu saafaral ñu leneen lu bëgg a ñëw yàlla yemale ko fii waaw lu mel noonu bañatee amati ñu ñaan ci yàlla daal mu ñuy saafaral bañ a amati waaye nag metti na de dëgg yàlla moom metti na foo ko nattee daal metti parce que si njeexitalu at mi amoon na lu mel noonu Derklé ba lu mat fukki bakken ñàkk fi bii tey ñuy wax ñaar ak jigéen ju wan noonu lor. waaw moom kay fi mu ne nii ñu dégg-dégg yi moom dangay métti na métti na de gaz yi moom instant bii métti na moom métti na ba mu nekkoon kastoor it noonu la woon métti woon na. waaw métti woon na ndax xam nga ndogal ñëwee accident ñëw benn nit sax bari na waxatuma laa ñaar ak ñett waaye ngay wax ay ay ay fu bari na de. waaye nag ndogalu yàlla daal waaw ndogalu yàlla rek waaw. ban appel ngay def si ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ñu distribuer gaz yi. waa li may wax ci ñuy distribuer gaz yi mooy ñuy seetaat bu baax gaz yi ñuy joxe parce que gaz li muy exploser léegi liñ koy dégg dafa bari dafa bari waaw ñu koy xoolaat bu baax parfois da ngay def sa beg sax fo bi génnee ci taat bi waaw dangay ngay di ëff bu dee koo xam ne da nga gaaw a paniqué. Eh, eh, eh, mun na la mun na la indil leneen parce que da ngay jéem a fay ba indi leneen bu dee koo xamante ne xëj na am nga expérience bi mu mun nga mun nga gaaw rek fay ko waaw parce que lu mel noonu daf may dal sama kër yenn saa yi dañuy taal gaz au lieu mu génnee ci bég bi mu génnee ci taat bi mais dañuy ñëw rek daal di ko ëf mu fay bu dee koo xam ne amoo expérience boobu noonu da ngay tiit. boo paniqué mun nga def neneen noo xam ne mun na ko aggraver waaw lu mel noonu day am ñooy ñaan daal ñi nga xam ne ñooy joxe gaz yi ñuy xoolaat gaz yi ñuy jox jaboot yi xoolaat gaz yi ñuy joxe ci àdduna bi yëpp nag ndax du senegal rek ci àdduna bi yëpp nañu xool gaz yi ñuy joxe matière bi nañ ko xoolaat nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que nit safara li ko tiital dafa yomb am na ku tiit mën a gaawalantu mën a fay am na ku tiit day sanni te boo sannee sànni bi moo gën a bon sànni bi baaxul waaw li may ñaan daal mbokk yi nga xamante ne ñoom la lu mel noonu bu amatee bul gaaw a panike bul gaaw a paniqué sa boo xamante ne flamme bi génn na ko fay waaw ko fay parce que lu mel nii gaaw a moo indi lii moo moo gën a aggraver jëyi bi mais bu fekkonte ko koo xam ne paniqué wul woon amoon na num mu doon def ba mun koo dëpp ba ba mun a kii te fuite bi du du bëri waaw waaw jëye bii day ndogal yàlla la eh, ñii ay pol lañ wax dëgg yàlla miinuñu gaas bu fekkee ne miinuñu gaas léegi ñu dëkk ci taax yi ki ki doon xambee matt ak def këriñ buñ demee léegi nañ na xambee gaas miinu ko jéyee bi lee ko indi mais nag ku nekk xam na ne gaz am na lu mu bugg am na lu mu bañ gaz am na lu mu bugg am lu mu bañ càggante nag am na ak ndogal àll ya àll am na mais nag information ñun bi gaz xewee dañuy jël fii yóbbu ñu port ñu won ñu gaz ni ñuy taale ak ni ñuy faye balaa ngay taal gaz dangay ngay ko sa bere almet ba pare sa loxo càmmoñ bi te te te almet bi loxe loxe ndeyjoor bi te be gaz bi nga ubbi teg kos ma soog a tàkk donc nag léegi jamono buy léegi dafa dox ku jóge àll bi ñëw mosul gis gaz mosul kii gaz ndogal day wax mais nag ñàkk xamit mu ngi ci ndogal nag bu ñëwee ndogal ñëw na rek loolu de mooy liggéey bi ah yàgg nañ fii nag bu njëkk bi fii ñëw semaine bu nekk wala ñaari semaine bu nekk pompier day ñëw fii di fay boobu ay baraag ñoo fi nekk ak ay sàkket bis bu ne pompier day ñëw fii boobu lañu gën a sonn léegi tabax am na tabax bi mu amee nag léegi lakk bi ma wàññeekul. ah ñaari fan ñetti fan bu ne pompier day ñëw fii day lakk parce que ay ay ay sàkket moo fi nekkoon. ak ay baraak ay bant lakk bi dafa doon bëri léegi nag wàññeeku na macha allah wàññeeku na bu baax a baax juróomi at yi moom lakk amu fi lii nag ndogal yàlla la yàlla na bu indee ndogalam kenn mënu ci dara mais nag ñàkk miin mu ngi ci ñàkk miin mu ngi ci. ñu gis aussi ne gaz yi dafay faxal di def jëye parce que amoon na bu mel noonu rek derkle euh, bi at bi jeex rek lu mat fukki ba kenn ñàkk ñàkk ko. waaw loolu moom mu ngi càggante ci gouvernement bi la. bu amee gaz bi ñetti qualité wala ñeenti qualité dañuy war a seet qualité yu baax yi qualité bu baaxul bi ñu ne ko gouvernement bi lépp lu fi baax xam na ko lu fi bon xam na ko bu ñu fekkee ne xam nañu ne modèle gaz bi baaxul ñu seet kii yore affaire gaz bi ak kii liggéey gaz bi ñu ne ko changer modèle bi loolu ndogal ndogal gouvernement la fekkee ne gaz bu baaxul nit ñi di utiliser gaz bu baaxul. ah man de xam naa ne gaz baax na baaxul parce que li tax ñu ne baax na baaxul njëriñ mu ngi dem ci gaz bi ñëpp ñu ngi njëriñoo gaz bi kon nga xam ne baax na moo gën këriñ moo gën mat boo seetee këriñ ni mu mel ku nekk xam ne këriñ ni mu mel ku nekk xam ne encore mat ni mel ak sakaar bi ak yëpp wàññeeku na kon gaz baax na. utilise bii nag ni ñu ko utilise nag war nañu fagaru war nañu xam loolu waaw. xamoon nga ñi fi nga xam ne ñoom ñoo lakk si affaire bi maire beeg yooyu. maire bi jotuma ko xam parce que affaire bi dafa bari changement euh, ñi nekkoon ci baraag yi man jëkkëram laa xam mooy jëkkëram gaañu ñi mag ñi ñi fi nekkoon ñu njëkk yi ñi ci bari nekkatuñ fii léegi. dama jé dox dak ba gis nga am koor ku ñu bees ñu bees bari nañ fi lool lool lool bu njëkk bi baraag yi bariwul ñëpp xaman nañ nañ xaman nañ ñëpp mais nag léegi xame bi bariwul bu njëkk bi bariwuñu mais xamante nañu ñëpp mais léegi xamante bi bariwul moo tax jotuma ko xam bi fii ñëw 91 92 semaine bu nekk Pampé de fi taxaw fi am na yu bari ñu gaañu fi lakk ci lakk am na suma benn xarit boo xam ne maa ak moom ñoo dekkoon ji ñaari doomam mos na fi gaañ ci lakk léegi ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax. bu njëkk bi ay baraag ay sàkket ñoo fi nekkoon léegi baraag nekkatu fi sàkket nekku fi boo pompier ñëwatul fii léegi dañuy toog ñaari at ñetti at ñu gis pompier am nga sant yàlla la. sant yàlla traitement nag bu ñëwee comme li nga wax rek mun na nekk càggante nit ñi mun a nekk encore ci euh, liggéey gaz bi. donc nag gouvernement bi comme li ma wax léegi gouvernement bi war na saytu xam mu dele gaz bii kat baaxul bu defee benn bu def ñaar ñu seet usine bii ki liggéey gaz yi ñu dem contrôler ñu seet gaz bu baax ñu génn ko jaay nit ñi ñu seet gaz yu bon yi ñu supprimer leen loolu go la. voilà mbokki téléspectateurs yi si nañu nag si kër gi nga xamante ne fi la jëye ji amoon keroog euh, le fé le 8 février euh, si fajar muy alxamis boobu nga xamante ne si la gaal bi explosé woon fii nga xamante ne moom mooy Liberté 6 cité Baraka euh, moo nekkoon jëye joo xam ne bu doy waar la nag bi mu amee si saase kenn ñàkk si woon ba waaye bés yi dañuy dem lu mat juróom-ñeenti fan am ña nga xamante ne ñoo si nekkoon ay blessé ñoom ñëpp yàlla def am ñu si mujj ñàkk seen bakkan muy maire bi nga xam ne fi la dëkkoon ak sëtam ak beneen doomam boo xam ne dafa wan noonu lor muy ku jigéen kooku ngeen doon dégg jigéenu wérul te tëbe woon troisième étage mu nekkoon nag xew-xew bu doy waar bi nga xamante ne yëfi évolué na 7TV delsi waat fi waaye ñu taxaw kenn koo xamante ne ni si kër gi la bokk moom fi la ko yëfi fekk muy Albarka euh, Kayre nga xamante ne lutteur la buñ dul kenn dootul présenté moom yëfi seen kër la amee champion maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay naan bisimilah ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent maa ngi sant sama ñaari wéju waa nuyu Sénégal yëpp waaw. ñu ngi lay massa bu baax a baax tey ñu ñëw seen kër am xew-xew boobu boo ñu doon expliquer nan la demee. waaw xew-xew bi dañ koy bàyyi loxo yàlla rek ndogalu yàlla la waaw parce que nu ma tëdd waaye côté 7 heures 8 heures moins sama rakk fëgg ma pour naa ko jox begu gaz waaw ma jug di dindi beg bi pour jox ko après affaire bi ci la mu ko deseere ba fu muy waaye jeex daal affaire bi mel ni. maanaam bu mun a tëf daal dal ma ci dënn xaw ma wiccax si bët waaw ma daanoo côté euh, ma jóge bëggoon naa foncé sax jéem a jàpp gaz bi mais après dafa am doole nu mu daan génnee waaw dafa doon génn bu baax xam léegi ma xam ne lii mënatuma ci dara waaw après ci laa daw caleçon rek laa sol sama néeg waaw amul dara loo xam ne ni génn na léegi ci laa daw génn bi ma dawee génn maa ak sama tante ak sama rax bu jigéen bi noonu ñuy daw di njëkkante wàcc escalier parce que après vite fait daal affaire bi tàkk na waaw ba mu tàkkee nag amuñu benn pexe fekk na sama rax tëdd ci biir waa moom dafa nekkoon ci dafa nekkoon ci état daal waaw après moom amul fenn fu mu jaar parce que xal bi fii la jëlee ak côté bunt bi nii ak fii wax naa dañ fi xaw dañ fi defoon benn genre contreplaqué sama beneen mag bi muy ci biir tëdd waaw ba ñu xamee ne mënuñu génnee fii après sama mag bi dafa tëb waa troisième fii moom ci balcon bi la aw dafa tëb xaw a jàppandu mais comme que moom góor la xaw ma nu mu def daal ba waa euh, euh, lii dugg deuxième waaw mais fekk na tànk yëpp fii la nekkoon ci palanteer bi mooy palanteer ba ngay seen néeg boobu ñu dugg yuuxu ba sonn amul kenn ko dimbali dafa mujjee tëb moom it nag mu dal ci fiil yi waa ak euh, fiilu courant noonu moo ko aidé ba dalul bu baax mais moom it yaram bi yëpp làq waaw sama jarbaat bi moom it mu woon ci biir di waaj génn pour dem école waaw moom it xal bi ci la ko ci la ko jàppale jàpp ak beeg lépp fekk muy tëdd ci biir parce que da doon xaar ñu jokk xaalis ndékkiyam pour mu génn ci la affaire bi am. waaw sama tànt nag bi may daw di génn man ak sama beneen ràq bi moom mu yoon ñun ñëpp ñu daw génn waaw mais bu ñuy daw di waaj xam naa ci la dellu pour xale bi affaire bi moom it jàppale ko waaw lakk kanam bi ak bopp bi xam waaw mu nekk lu metti daal loo xam ne ni waaw. d'accord bu si fee yi alxamis si fajar da ngeen xëy nan la demee ba beggu gaz bi ñu la koy laaj ba gaz bi explosé nan la demee exact waaw moom dafa yoroon gaz parce day faral di jaay beñe day saaf beñe quoi suba teel bi waaw léegi man dama leen ab woon beggu gaz parce man dama jëndi woon gaz chargé woon gaz indi ko fi après bu ma ko indee ma bëgg eh, ma seere sama beg mu yàqu léegi ma tayal teg naa ko noonu presque ay quatre jours 5 jours utilisé wu ma gaz keroog daal laa dem contact ñu sonn ma ne tey ndox bu tàng laa sentir sango waaw bi ma yéegee ci kaw nag ma ne xaaral ma abu beegu gaz ci laa abu sama tànt ma ñëw jël beeg bi seere ko après ci laa def sama soxla léegi si suba si ñoom ñu soxla beeg bi parce que bi ma koy euh, maanaam bi ma paree sama soxla fekk na ñoom ñu génn te bëgguma dindi beeg bi di ko tegee noonu ma baagu foofu léegi suba si ay 7 huit mois moins moom ba muy saaf bi bëgg gaz ba mu yoroon amul jàppukaay day xaw a desee neex daal waaw léegi xam naa après ci la ne baa ma fëgg mbër mu jox ma beg bi moom monte ko moom may fëgg sama buntu tëjuwul maa ngi nelaw mm-hmm. waaw ci la may fëgg fëgg ñaar yoon ñett ba ñett yoon après ci laa ne ko kan la mu ne mal la siré muy sama raq mm-hmm. mu ne ma mbër jox ma gaz bi eh, jox ma beg bi mm-hmm. man ci laa toog di tasaare beg bi waaw léegi ci biir désert bi ci la action boobu am. Hmm. parce que koy dese ba fu muy waaye jeex affaire bi ne tëf dal ma fii. beg bi si boppam moom ma dóor fii laa la wax. waaw léegi affaire bi xam nga bu génnee. Hmm. da lay dugg. Ah, waaw day dalay dugg léegi gaz bi moom ma xaw dugg si kanam heureusement sax ba laal ma bu baax. ci laa daanoo ginnaaw man daal bu may daw génn xaw ma sax fu ma nekk comprendre ma. ak seen naa ma xam ne damaa jaxasoo hmm. boobu ma ni xaw ma fu ma nekk damaa jaxasoo mënu ma sax. da jéemuma dara ni ma toogee noonu ak caleçon ni ma ko solee noonu noonu laa dawee génn ma génne rek départ waaw parce que affaire bi daf ma jaxase ci biir daal waaw. donc moom dafa amoon beneen gaz bu fi nekkoon di tàkk wala fourneau wala lan. waaw benn gaz bu fi ne. waaw fourneau bi nag dama xamul ci biir fii la ko teg wala fii la ko tegee parce que day faral di togg ataaya xam nga day jaay beñe léegi day defar café Touba waaw léegi dafa doon doog foofu xam naa xëy na tamit làmp bi tàq la parce que xam boo yow suba teel nii dafii day xaw a lëndëm tuut boo delloo bunt bi waaw te amul loolu tamit mën na ko taal waaw léegi daal ci la toog euh, teg fii lii bi parce que farine bi sax moo ngeen fii tegu gaz bi fii la ko teg mu ngi ko taal yaayam mu ngi koy jàppale fourneau bi xaw ma ci biti la xaw ma fii la daal waaw parce que looloo tax sa affaire bi gën a gaaw a jàpp waaw bu dee lamp bi tamit dafa tàkk noonu mais affaire bi daal dafa mel ni gaz bu muy génn daa mel ni nga tijji robinet bu mu sës laa la wax muy génn doole. jeex na. waaw léegi nag xam nga rek man daf ma leer ne que lii mënu ma ko téye te gaz bi dama bëggoon jéem sax mais jéem bi mënul ne parce que ba mu ma liwee ba mu ma duggee ba mu ma daanoo ginnaaw dama ko bëggoon jàpp xëccaat parce que am na benn genre bul buy nekk si digg bi am na noo koy bësee day bàyyi mais daa mel ni booboo effacé wu d'office. waaw parce que après voilà non après woon nañ ma sax enquête dem naa police trois fois ñu may enquête di ma laajte noonu ba fi ma jëndee gaz beeg lépp waaw mais daal action boobu moo ñu dal non loolu kay boobu taluma ko parce que affaire bi bi ma ko dindee tak affaire bi dafa commencé déclencher génn ba mu ma dalee ma daanu dama jéem parce que xam nga lu mënul ñaax la benn jour gaz taq na fi non taqul sax mais da doon génn ma bës bouton bi mu bàyyi léegi nag bii dama ñëw ba bëgg a bës affaire bi gën a am doole ma xam ne lii mënuma ci dara dara ci laa daw te kër gi dara desul lépp man sama néeg lépp a lakk. léegi kër gi ñaata nit ñoo fi nekkoon. waaw ñun ñëpp moom six personnes la ñoon waaw maa kenn rek ñoo lakkul muy sama rakk bu jigéen ki ma fëgg parce que ba may départ maa moo ñoo ànd di daw waaw. mun naa ne sax mooy loolu parce que ci biti fii laa fekk moom ak euh, maire bi yëpp mais mën na moo daw rek waaj ñoom ñu topp sama ginnaaw mais xel bi nu mu takkee dafa am doole parce que bi sax jotul presque dugg carrément mais xeeñaayu gaz bi bu jàppee sa yére day mel ni ñu sotti la essence rek xam nga léegi affaire bi xam naa ci la ko jàpp noonu bu bërëngu daanu xam nga rek mag non màgget na moom sama mag mag sama tante ma màgget na. nu mu tuddoon. moom Khady. Khady Diallo waaw. léegi sa sœur bi nga xamante ne moom moo ci ñàkk bakkanam moom mooy ku jigéen ki nga xam dafa ëmboon te na moom moo tëbee troisième. waaw moom la waaw moom démb la ñàkk bakkanam sax tey no barki démb. waaw moom it euh, barki démb ñoom ñoo bokk jour waaw ak euh, biiram bu muy yàqu tamit jour bu meer bi gaañoo la. waaw waaw parce que dañ waaw parce que dañ ñëwoo onze heures ne ñu sa nja sa jarbaat gaañu na. ma toogaat quatorze heures quinze heures mois ñu woowaat ma ne maire bi gaañu na. ñu toogaat seize heures dix sept heures moins dix huit heures woo ñu ne ñu biiru xale bi yàqu na. sër waaw muy même jour mais moom démb la mujjee waa ci liggéey waaw démb lañ doon dox pour papier mais tey lañ ko mujjee denc waaw. mu na moom bu dee métti moom métti na ko bu yemoon ci làkk dañuy sant bu baax parce que kenn feebaru fi kenn damul kenn rëkkul mais buur kenn du xëccoog moom man mii di wax ak yow wax ji ni mun na ma munoon na ma fi bañ a fekk. parce mënoon naa dee sur place parce que na ma doon jaay dëgër bopp na ma doon jaay góorgóorlu parce que xam nga loolu mënul am ma jékki-jékki rek daw déedéet dama doon jéem mais jéem bi dafa ma leer ne lii mënta sotti yaa ngi gis aw ma benn pexe lu daw ngir sama bakkan mucc waaye sama néeg dara desu fi sama téléphone sama rakk laa ko jox guddi gi na ma ko branché parce que sama sore dafa yaaxu looloo tax téléphone bi mucc mais à part loolu caleçon bi ma sol laa génnee suñu kër te xaw ma nan laa def ba wàcc suuf ba fi ma toog non nekkuma waaw si ba léegi nii affaire bi daf lay travailler parce que boo gisee ni mu demee woon noonu yëpp euh, sa xel du dal. barki Seydina Mohamed su may sangu damay tiit su ma nekkee si néeg man kese kese instant damay tiit xaw ma lan la xaw parce que affaire bi daf may daf may daf maanaam daf ma daf ma jàpp ko du ma fen waaw parce que mère bi sama wuju sama wuju la xam nga sama wuju yaay te moom laa dese woon waaw sama yi jigéen ñi ay doom baay yaa ngi gis. kooku ki gaañu de muy tudd Binta Fatmata Binta waaw ki nga xam ne ni moo làqul muy tudd Mariama Siré kooku la doomam gaañu xale bi am sept ans doomam la waaw waaw mais moom Bassirou waaw nit moom mënoo xëccoog yàlla dañuy ñaan gudd fan wër ak wër la rek mais jaam moom kenn xamul waaw parce man sama wàll boobu ku ma waxoon loolu du ko gëm nga yeewu suba teel solo dara waaw te man dañ ma yee sax dama doon nalaw dañ maa fëgg parce que dama naroon dem géej maag sama booy bee daa am combat dama eh, doon bañ mu ñëw fëgg dérangement am moo tax sama tijji sama bunt léegi nag non du ma génn non du ma génn sama bunt bu ma ko tëjoon balaa ma kaa tijji ma dee parce que loolu leer na ma waaw mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax waaw dinaa nag métti na. ban waaw li may lancé mooy. ku gis lii waaw non loolu moom xam nga fii àdduna la te nit xamul dara maanaam fii ak quelque maanaam fii ak ci kanam tuuti sax xamoo ko mais dañuy bàyyi loxo yàlla àdduna yàllaa ko moom yàllaa ñu sax ñun mun nañ dox di yéeg di wàcc mais kenn xamul fi la ndogal di dale waaw dañuy ñaan rek yàlla suturaal ñëpp waaw mais rakk bi dégg naa ne moom nekku fi woon dafa sëy ji woon daf fi ñëwoon noonu ndax li mu diis waaw noonu la deme sëy si euh, dafa sëy woon dafa diis moo tax mu ñëw fii pour nekk fi xam waaw dund lees voilà gis nga waaw moo tax comme li ma la wax rek. sa mag bi aussi instant bi moom nekkul ci état pour sax man wax. non ki ci ñàkk doomam waaw non du sama mag sa sama rakk la waaw muy tudd si mais xam nga góor bokkul. waaw moom loolu mënuñu expliquer lépp. yaa ngi gis waaw. waaw. ñu ngi koy baax a baax mel ni kër gi dara génn fi ba tey rek eh, dégg ngeen ko ni ko Albarka waxee eh, nga xamante ne moom fii si kër gi la bokkoon sa néeg moo nekkoon nii. néeg bi moo